kanaa mét kii kanaa xalaat rek xalaat bu bu bu reeree boo xasee ba lii dal la te deewuloo xalaat kese xese bi moom feebar la sakatuma yaram bi ci boppam dafa am gàllankoor moom daal depuis affaire bi dal ko bu ma ko yëgee dal na ko dafa mel ni man may papam may ma magam may may léppam eh, dëgg dëgg dëgg dal na ko dal na ma ki nga xam ne amul dara bu mu jógee kër gi woon day jël bi mu dem uti matta bu wow mu ñëw jaay léegi ngir loolu moo tax mu am lu mu am nii tey depuis mu am lii jooytu ñen jooytu nañu fu ne du ci jumaa yi du ci jàkka yi du ci partout jooytu nañu fu ne kon nag baadoola moom baadoola rek nit ki mun na la yërëm fekkee amul lu mu lay war a dimbale amul man mii maa doon taxaw di dem ci jumaa yi ci jàkka yi kon macha allah bu ma bu ma demee bu ma demee man ak jabaram ñun ñoo ànd bu ñu bu ñu amee daal bu baree baree baree ñu am ñetti téeméer wala juróom téeméer bu baree bare te ne bu mu nekkee nii moom moomu ko def ko jël ci keneen def luwaase la léegi nga war ci dund nga war ci yëkkati luwaase nga war ci profito li ngay am comprimé wala pikir xam nga loolu moom alhamdulilah rabil alamin lu la yàlla teg rek santal yàlla rek dem ñu ba yàlla def ma gisante ak ñi ma woo ko nga seetal ma waa ji ñun daal tey tay tay tey tey tey suñu wax fii fii fii tànk eggul ci état tànk eggul ci aduna bi yëpp ci lu ñu yaakaar du ñu am ku ñu dimbale lu ma wax état dégg dégg dégg dégg bu ñu gisee lii ñi xam ne kii nekk sama ginnaaw bii nii tey tey tey tey tey mooy yorel ñii ñëpp moo yore jàkk moo yore faj jëkkëram moo yore yore xale yi partout moo ko yore waaw moom ci boppam mooy jabaram mi ah xanaa mu dem uti ci nit ñi di yeluwaan lu ko yàlla may mu indi yeneen saa saay day ñibbi si fii mu ngi jooy amul yeneen saay day ñibbi si fii bu eggee fi mu commencé di jooy ñu ne ko loolu du dara bu fekkente am nga même liibar ceeb defal som bi nga jox xale yi loolu la ñuy dundee ñii loolu la ñuy dundee de pour jënd ordonnance comme li ma la wax rek bu bu ñu ko defalee fii ordonnance mun na jël xaale eh, mun na jël kayitu boobu balaa mu jënd ordonnance bi day nekk ñaati weer wala juróom weer sax fekkee ma tagalugul waaw mu soog a nag dem di uti. day deen yelwaan rek yelu ci yelwaan bi rek la koy amee ci yelwaan bi rek li ah, ñoom ñoom ñetti la woon ñi nga xam ne dañuy dañuy blessé ñetti la woon kenn ki mu ngi fii moom mu ngi fii kenn ki mu ngi woon kanjalaam fii man tey tey tey sax laa yegg kooku itam gaañu na xam nga man dama jógoon jógee woon fii ma dem Kolda bu ma ñibbisee ma ne ko naka ngeen nekkee fii mu ne ma ah ñu ngi fii de comme li ngeen wax itam pour ñoom ñu gisante du ñu mën a gisante kale mu ngi nale di tedde kii mu ngi di tedde kenn xamul moromam fan la nekk doo ko mun a gis doo ko mun a gis tey lañ ma tey la ma wax mu ne ma kooku gaañu na ma ne ko yëguma ko Demba Demba Jaaw la tudd moom normalement war na am comme lu mu wax daal soixante ans kooku war na am soixante ans xam nga léegi jigéen yi boo xalaatee lu la lu yàlla teg jëkkëram bi gaañu na léegi mbokk yi ñëw na pour jël ko léegi na fu mu war a ñibbi kan moo ko dundal foofu moo tax jëkkër e jabaram mu ngi des fi ba tey mu ne gannaaw kooku itam bay na ay xale kanaa mu nekk fii moo gën mu dem ci ah, suñu dëkk yi di yelwaan foofu ki ki ku la yelwaan nga yelwaan ko kan kan moo kan moo jox moromam ki nga war a yelwaan te mom mu yëluwaat la kan mo jox moromam motam mu ne dana def fi mom mu ngi fi ak domam yi mom itam ah alhamdullilah duñu wax wa quartier bi dimbalewuñ ko de gannaaw ba mu ngi dundu kay fofu ngeen di xamne dal mu ngi lek kon nak ñom ci seen bop ku amul nakalala la mu ne am eh, jox la lu la doy kenn du mun a am lu doy kon nag ku nga xam ne amul yaa ak moom yéen a dekke kanaa lu mu lay yorel e yére mande kanaa mu yére mande moo bu nekk na ci yow kon na amul te yow amuloo te lu muy foraatu foofu lay seddoo mu may la xam nga loolu moom waxuñu duñu duñ ko may de kon la lu ñu leen moom kay ci coono rek la nekk daal ci coono rek léegi lu ñu ñaan lu ñu ñaan yàlla may nañu jàmm ak salaam eh, yen ku mel ni yéen ñi nga xam ne yéen joy nekkee jooykati nit ñi yëpp aduna bi yëpp ku war a jooy rek mu wax leen jooy na yéen a war a jottali aduna bi ah am na ñuy jooy fii de eh, ngeen taxaw ñu ngeen taxaw ñu waxuma sax Macky Sall yéen ci boppam bu Macky xam nga du dégg fii sama wax. boo gisee mu dégg rek xanaa yéen a tax waaw léegi Macky Sall dañu koy ñaan mu fexe ba mu gis ñi mu gis nii yàlla def mu mu mu jox ko mu jox ko lu mu lu mu war a dënd ak xale yi ak xale yi xam nga ñun fu mu nekk ni kii moom ah kenn ñaanu ko pour mu gaañu mu dee kenn ñaanu loolu yàlla kon kii fu mu nekk nii moom pare na léegi doomam yi fan lañ war a nekk ñoom. pour ëllëg bu fi jógee àdduna kii xale yi fan lañ mu ngi nekk ak papam xam nga kenn mënu ko ñëw jël fii mu ne maa ngi dem maa ngi ko yóbu léegi lu ñu ñaan daal Macky Sall na koy dimbale na leen dimbale ñoom ñëpp na leen doom dimbale ba tey dimbal na de wax dëgg yàlla dimbal boobu amoon na kon nag ah ñu ngi ñaan dimbal bi ba tey des na ci ñi ñi nga xam ne ñu ngi fi.